ci bi bégal sama askan Ladoum Nous avons eu le privilège de partager ce rendez-vous annuel avec vous et chaque participation est pour nous une source de satisfaction et de fierté renouvelée En tant que partenaire historique de cette association depuis de nombreuses années, le Cercle des éleveurs de la banlieue, CEP, avec à sa tête son président, docteur Niang, bi may nuyu au passage nuyu naa ko sànq mais dama koy nuyuwaat di ko sargal di ko ziar di ko féliciter. Nous saluons, euh, nous pouvons témoigner aujourd'hui des progrès significatifs réalisés dans le domaine de l'élevage. Il suffit de regarder autour de nous pour constater l'évolution remarquable de cette foire. Le nombre de box a fortement augmenté. boo leen xoolee box yi mu fi amoon en 2020 2021 dafa doublé mbaa mu triplé le nombre de box a augmenté les infrastructures ci boppam dafa modernisé wu le cadre de la foire s'est embelli le nombre de participants ne cesse de croître Même la qualité des bêtes exposées est à féliciter. Ces améliorations sont euh, le résultat de votre détermination. Je veux parler de Dr Nian et de tous les éleveurs de l'association la, de la, de SEB. Ces améliorations sont le résultat de votre détermination sans faille à promouvoir l'excellence dans l'élevage et à offrir un environnement propice au partage des expériences. Mais ce n'est pas seulement sur le plan matériel que des progrès ont été réalisés. Machallah, vous avez également fait preuve de créativité en innovant dans vos pratiques d'élevage, en utilisant les nouvelles technologies pour avoir de très très belles performances. Vos efforts ont contribué à propulser l'élevage du Sénégal au Sénégal vers de nouveaux sommets et à en faire un modèle d'excellence. J'aimerais également profiter de cette occasion pour rappeler notre engagement inébranlable à vos côtés pour le développement continu de l'élevage au Sénégal. Nous sommes déterminés à suivre les pas de notre défunt PDG, feu Ahmed Amar, yàlla na ko yàlla yërëm xaare Sa vision était dévouée à l'excellence. il était motivé par le travail ku ko xam Ahmed Amar xam ni que liggéey dong moo ko ñoroon te fi mu tegoon éleva élevage ak éleveur ci bi muy dund kenn tegu ko fa ñu ngi koy ñaanal yàlla ak euh, teeru ko àjjana yi gën a kawe c'est en travaillant ensemble main dans la main je suis convaincue que nous pourrons réaliser des avancées encore plus belles dans les années à venir pour terminer Permettez-moi de vous adresser nos plus sincères remerciements pour ce partenariat fécond et pour votre contribution pour le rayonnement de l'élevage au Sénégal. Puissons-nous travailler, continuer à travailler ensemble avec détermination, passion. Les éleveurs de l'ADU sont passionnés et engagement pour un avenir prospère et continuer à agrandir la communauté des éleveurs. Je vous remercie. merci di ñaan yàlla ñu teeweewaat ko ay at yu bare bare bare liggéey bi gën a naat docteur Niang yàlla na yàlla yàlla na yàlla guddal say fan ndax sa taxawaay rafet na trop trop trop maa ngi nuyu du ma ko fàtte sama frère Abou Kane sama frère la man mën naa ni éleveurs yi fi nekk ñëpp dañoo yàgg liggéey nekkatul sax liggéey NMA ak éleveur bi ñoom ñëpp samay càmmiñ lañ maa ngi leen di nuyu ñëpp yéen ñëpp di leen sant. ndax assistance bi yàgg na maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp nuyu bi nag maa ngi koy euh, jiital ki nga xam ni moo fi représenté ministère de l' élevage de l' et des productions animales ki ko fi teewal mooy le directeur si Diagne docteur di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu président association yi fi teew yëpp. su ma cité Alpha Omar Kane ñu wax Abou Kane le président de la FENAFO ak le président du RENADES monsieur Djibi Wade yaakaar naa ni ëmbale naa ñi fi nekk ñëpp euh, kàddu yi nag euh, maa ngi koy yëkkati si ndigalu sama jëwriñ Birane Ngaye euh, di ko sant di ko ñaan mu ñaanal ma ndax wax si mbooloo dafa jafe te dama ko tële maa ngi nuyu tamit exposants yi nga xam ni ñoom ñoo présenté ay sujets yu doy waar euh, si biir foire bi jot nañu visiter daanaka box yëpp te gis nañ liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def euh, saa su ne mi ngi jëm kanam ah gàcce nga laa ma nag ñi ngi xam ne ñoom ñoo yor organisation bi nga xam ni moom mooy cercle des éleveurs de la banlieue ak seen foire bi euh, je pense que foire melagul nii ñi ngi ñaan yàlla mu jëm kanam di leen remercier si par bi ñu def ndax honneur la euh, di ñaanal ñi ki nga xam ne moom ngeen parrainé di ko ñaanal mu fekk ko ak tal ñun ñëpp ñu fekk ko ak tal ndaxte ku ko méttu la muy doyen Touré euh, vraiment c'est quelqu'un qui a œuvré pendant longtemps euh, dans le bureau de l'ADAM et qui a cheminé avec beaucoup d'anciens éleveurs et qui continue à cheminer jusqu'à présent à donner des conseils pour les jeunes éleveurs donc euh, doyen Euh, du ma nag terminer te gërëmuma ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaaw euh, bergerie de Khadim ak Carrefour des Champions parce que euh, bergerie wala ay xar bu ñu amee njëriñ ba am li nga xam ni tur wala ñu am jaloore ki nga xam ni mooy njiitu bergerie bi jar na sant jar na félicité waaye équipe bi nekk ci ginnaaw dañu jar sant jar a félicité euh, dama ci lim ñaar rek ci Carrefour des Champs PGE Carrefour des Champs bi nga xam ne Birane Gueye mii moo ko jiite muy am ak ndongo su ma leen limee rek ëmbale naa ñi nekk ci équipe bi yëpp beneen bi damay félicité di sant sama associé muy Khadim Diop yàlla dafa dogal dafa voyagé jotul teew di ko félicité parce que yombalal na ma yëf yi ndax ànd dafa jafe surtout ànd bopp alal ànd nañu ñi ngi ànd ñi ñaan yàlla suñu borom ngeen ñaanal ñu suñu borom sàmmal ñu ànd bi ma jox leen benn anecdote bu ndaw rek euh, bi muy euh, NMA soxloo image Euh, Galactic ak All Black fekk ñu am benn euh, agence bu toppatoo loolu moom mu nekk biir NMA je pense que Aïcha du ma bàyyi may wax n'importe quoi mën na ma témoigner si li may wax agence bi moo représenté NMA mu ñëw gis photo Galactique dafa gis si mbedd bi ñu après approché waa NMA ñu ñun xar bi la ñu bëgg ñoom xamuñu ne xaarim Jóob moom moom xar Xaadim Jóob si waxu leen ñu bàyyi la def liggéey bi ba ñu ñëw si man ba ñu ñëw si man defal ma proposition mënoon na ko see bañ a faj mais B2K moomu ko Xaadim Caam moomu ko structure la donc loolu moo tax mu doxalee noonu waaye man ma xam ni que su mu bàyyee lii way wéy moom mu nekk si biir entreprise bi day mel ni que dafa jaay boppam image ma ne ko nag xel nanguwul yow nga nekk si biir entreprise bi ñu soxla image xar yoo xam ni yow danga si am wàll mën a koy jaay donc ànd loolu la noonu la àndee noonu nag laa àndee ak sama xarit Birane Gueye nii ndaxte nit la koo xam ni ku dëggu la euh, qualité yi ma am man doy ma ko seede donc dama koy ñaanal yàlla euh, li nekk ci xol bi làmbi bi mënu koo génnee donc euh, dañuy jël yëpp rek jox suñu borom ñi nga xam ni moom moo xam lu ñu ressentir ak ñaan li nga xam ni fu ñu ko natt rek pas weesu na ko ñu ñaanal ko jàmm ak salaam lépp lu mu dugg rek suñu borom barkeel defal na ko nag ak assistance bi nga xam ne moo fi nekk ñëpp ñi ngi ñi ngi gërëm ñëpp ndax ku lim doo matal séance bi yàgg na te nit yi dañu war a saareer yi ak pël yi dañu war a xewalu te xam naa ne temps bi sa benn nopp daanaka sax déggatuñ ma donc dañuy jégalu rek si monsieur le directeur bi nga xam ne moo représenté ministre de l' élevage et des productions générales ak des productions di ko wax ni que ànd bi euh, dafa war euh, sànq j'ai entendu parler de euh, des sponsors notamment NMA et les grands moyens de, Dakar ils ont l'obligation d'accompagner les éleveurs parce que si on avait mutualisé les commandes au niveau du concentré moo xam Superladoum bi la wala GM GMDB si on avait mutualisé les commandes

au niveau des minoteries, c'est les éleveurs en tant que ladoum qui le qui le consomment. si on avait mutualisé les commandes, vous aurez vu que vous êtes aperçu que de votre d'affaires, c'est avec les éleveurs ladoum. Donc vous avez l'obligation d'accompagner les éleveurs. Vous avez l'obligation d'accompagner les événements que les éleveurs tiennent, notamment les associations, que ce soit au niveau estatique, que ce soit au niveau fédéral. En l'occurrence, FENAFO et Renades. L'autre partie que je voulais évoquer, euh, je l'ai dit tantôt, notre association se situe dans la chaîne de valeur au niveau de la fermière Covid. Il faudrait comprendre que tout le monde ne peut pas être semencier. seul directeur de l'élevage. Dans la chaîne de valeur bovine, tout le monde ne peut pas semencier. Nous étions au niveau de la semence. Nous sommes des semenciers au niveau de l'élevage labour. Comme dans la l'agriculture, tout le monde ne peut pas semencier. Il y a des semenciers, il y a des gens qui utilisent, des agriculteurs qui utilisent la semence pour la production, pour nourrir la population. Donc, euh, l'accompagnement est une forme de collaboration gagnant-gagnant. Euh, je rappelle aussi aux éleveurs qu'il peut y avoir une surproduction au niveau de la semence. Boy, télé bi bégal sama askan